Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm Selam. Muhtemelen yemin ediyorum. Kılıfı yukarıya ki tevhini ısrar edip Büyük olarak ismimizi Aleyküm Selam. Televizyon var. Çok çok İbrahim'in üzerine. Yep. Yolun bir yerine. Yolun bir yerine. ziar ñëpp dañoo yónnee te loolu moom bu ñu yónnee taxawaayu ko yónnee rek lay taxawee. sëñ bi boobu incha allah heureusement taxaw ni moo ñu yónnee ndax ñoo bokk lépp mu lëkkal ma ci lépp fare ba fépp kon mu amee lu su ma nee woon fay leen yàlla na paas ñëw fekk si kon alhamdulilah yàlla may na ma wax si jàmm ma jàkkaarloo mbooloo te eh, mbokk taalibe yi sant leen ak gërëm leen rek lay def ndax fu mu waroon sëñ Tuubaa rek moo da ngay yëngu mën ko fekk ngeen def ci lu ngeen mën ak lu ngeen mën bis tahawai itu semua akan keluar waare mu tax ki nga naan annonce ba lépp sëñ Tuubaa la tàmbalee ci sëñ Tuubaa la yem kon innal lazina ila sarsara xasalu orang kita xam ne teel def rek moom nga teel sarsaar sarsaar wala nga dem xumaat baa nga fekk woon sëñ bi ñaan yàlla may ko fan bu gudd ñaan ko taxawal suñu borom may ko ñaan nañu may fekk. kii di kilifa di sama kilifa yi sant na ko gërëm na ko yooyu loolu nag jar na jóge fii bakkaanaat ngir fekk am kon am jërëjëf rek daal wax. may ñëw nag fekk ci sama rek bu si maam Mor. ne bu ma ne ñu ngi fa ñun fu kenn teew rek teewal na fi ñëpp kon teew nañ fi ci tur sëriñ Abo waaye teew nañ fi ci tur sëriñ si Moussa Abdoulaye teew yi ci sëriñ tur sëriñ Moussa képp ku bokk ci sëriñ Touba fu ñuy wooteele sëriñ Touba te nga nekk fa yaa fa teewal na ñëpp kon teewal naa fi ñëpp waaye nag ngay ñaan ndax dama war a delluwaat Touba rek kër yi rek dama yëkkatoo danaa dem naa am loxo rek amiin Mbacke amiin Mbacke ku fi teewoo ñaan nga fi teew fi lépp loo xam ne defoon na ci yow xat-xat ak mbir mi jamono bi yàlla na suñu tubaab àttal mosoo leen te def na ko nag ndax ñaanoo rek ko nangu waaw ñaan suñu tubaab seen baax nee na ba muy ñaan ba mu geesoo ci gannaaw kenn ñu ci gannaaw naan ko kooku rek mooy ñaan gannaaw yàlla dafa wax ne sëñ bi mën na ko bàkkee moom loolu gis nañ àddina bu sosoo ba léegi ñaari ñaan la suñu borom la ñaan suñu maam Ibrahima yonent yi waaye xol bi yëpp sëñ Tuubaa rek ko ci ñaan ak na moom ñaan kon nañu xam ne kii ñaan ko nangoo ñaan la sëñ Fall waxoon ku tàbbi ci biir rek waxal amin asalaamaaleykum wa rahmatulah